a israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jacal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu uh, maa ngi nuyu mbokki julli yi nga xam ne ñu jàkkaarloo ñun di sunu mbokk internet yi di leen siyaare bu baax waaye di jiital ci nuyoo bi nag ak siyaare bi saahibul fadila cheikh mohamadul muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te àggale ay mébétam ak i naalam yëpp barke Cheikhul Khadim ak mboolem njabatuk Serigne Touba gi ak mboolem jullit yëpp waaye di siyaare mboolem julliti àdduna bépp mu rawatina nag mboolem julliti Sénégal gi ci weer wu tedd wi nga xam ne mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, te nga xam ne Rasulullah sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne. Euh, sunu waaju suñu yaakaar yi àdduna àlaxira sunu sang bu tedd ba di Cheikhuna Ahmadul Xadim mooy ki nga xam ne lépp lu ñu ngab-ngabi wala ñu xam ko wala ñu bëgg ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci moom la ko suñ borom jaale jaarale ndax li mu wax dafa leer nañ moom ci diggam ak yonent bi day topp yàlla waaye day liggéeyal yonent bi utiyon ilaahi xaadiman li wasilati la wax sëriñ tubaa nag radiallahu taala anhu wax ne digg mag yonent sa saa salaam ku ciy waxtaan yaakaar naa ne bala ngaa mën a wax ci yonent sa saa salaam duñ dégg dangay jaar ci xaadimam boobu mooy seexul xadim mu wax ne moom bi nga xamee ne yàlla dogal na ne muy xeeñtu rasulullah saa salaam di bind ci moom di ko taalif waaye di ko di def ay am ndax jëmee ko ci moom ba àgg ci xelwatu boobu mu defoon ci jumaay daarul xuddoos ji mu wax ne bi ko rasuulaa salaam feeñoo ànd ak waa ahlu badr da ko wax ne ko yow kat sama xarit nga sama soppe nga danga àgg nag fa nga xam ne fa la mboolem awliyaa yi daa daa àgg ñu di leen takkal euh, lañu seen seen seen martaba xutbaaniya muy xutbu zaman yow nag li la tey àgg ci loolu sax ci ay weer yu néew la topp mooy la la la toll waaye dama la ko bëgg a taxañal bi ko Seexul Xadim dégloo mu ne ko ñi nga àndal ñum doon Rasulullah sallam ne ko ñi ñooy waa ahlul badr wax ko ñim doon wax ko seeni cër wax ko fi ñu jaarale lislaam ba egg si foofu Sëñ Tuubaa ko ñi ci ñi laa bëgg a bokk nee na rasulullah sallam ne tekk ba mu yàgg mu ne ko ah bëriwaane ko toll fii nga toll ma feeñoo la nii ma ko feeñoo waaye lii la lii nga wax lay wax mooy day bëgg a bokk ci ñoom te ñoom bokk ci ñoom dafa faat ndax fekke ay xare tuur deret amatut nee na sëñ Tuubaa nee na ma ne ma ne dënn ba mu yàgg nee na waaye rasulullah sallam ne ma dees na ko jaay nee na ma ne ko ndax sañ na maa xam njëgg nee mu ne ma waaw mënees na mënees na la ko wax waaye bari waane toll fii ma feeñoo ko nii ma la feeñoo mu laaj ma njëg gi ma wax ko waaye waxuma la waxaale ko waaye day daw ndax deesu teg natt boo xam ne nattu wàllu yi la waaye nattu lañ lay teg te bu ko sa bakkan bakkan attund da ngay nee na mu ne nañ ko ko wax ni mu toll biñ ko ko waxee Sëñ Tuubaa ne attan naa ko nañ ma ko teg kon bëgg yonent bi saa salaam foofu la tàmbalee waaye foofu la mën a yem bëgg ko bëgg bëgg bëgg ba wax ba bañ wax la ne la natt bii ñu lay waaj a teg bu ko sa bakkan attanut da ngay faatu te du nekkul nattub wàll yu nattub yonente lay doon nga ne bëgg bokk ci ñi àndoon ak yow ci laa bëgg a bokk kon bëgg yonent bi saa sallam moom ci sëñ Tuubaa la tàmbalee waaye ci moom la yem waaye bi mu ko waxee loolu it ba yonent bi saa sallam wax li nattu bi jar xamal ko mbëggeel gi mu dox seen diggante ñoom ñaar sëñ Rasulullah sallam ne ko nag Eh, dana am waaye ñaari sart benn bi mooy dangay génn tuubaa gii nga nekk ndax ñaan nga suñ borom ba mu aarale ko ba doo fi mën a doo fi mën a nekk ab natt di la fekk te boobu suñ Touba bëgg na Touba mbëggeel goo xam ne kiimaan la ba ko ñaareel it mu ne ko sa nijaay jii nga xam ne mooy suñ bu soobee moom it day day génn ab liggéey day day wàcc ab liggéey ndax wàll yu la woo xam ne àgg na ci suñu borom lu mu ko ñaan mu may ko ko te bu ñaanee suñ borom natt bi bañ laa dal natt bi la dal kon moom it nag génn àdduna suñ tubaa ne ko nangu naa ko yoon bi saa ne ko ñaari ndim benn ndimbal rek nga mën a am nag ci man mooy nattu buy ñëw dinaa la woo ba nga wuyu ma ma ne la nattu baa ngi ñëw foofu laa ci yem nattu boobee bokk na ci natt yi ko waxoon ne ko daañu la ko teg mooy lu toll ci suratul bàqara ci ay aaye lu toll noonu ci ay natt daañu la ko teg te ñi koy teg natt bu mu ci mën a doon buy bakkan la te buñ la teg tey bu ëllëgee dañ la teg bu ko gën a bu metti te boo nee lu tax ngeen def ma ko danga yàqu boo ne us lu da yàqu soo ne fu leen ma jëmee da nga yàqu bëri ba mu bëree baree baree baree bëri waaye Sëñ Tuubaa ne man daal bakkan bi xawma lu mu attan ndax bindu ma ko waaye lépp lu ruugi ba attan rek bakkan bi dana ko yan incha allah rabbi ci la jëla ah, yan boobee nag yanu ko ba àgg nag ci wax nag ne eh, raama rasulullah min ilahi kaw ni kaw ni xadimu wax abdullah ba àgg bind wax nag ne yonent bi sallallahu alayhi ci boppam moo sàkku ci sama borom man ma nekk ab yonent ma nekk ab liggéeykatam kon loolu mooy mooy mooy li wér ci diggante rasulullah sallallahu ak cheikhul xadim waaye nag ca la jaayante woon nag wax ne diggam ak yonent bi sallallahu alayhi daal dundam gépp moom def na ko ñaari xaaj benn xaaj bi mooy di julli ci moom waaye beneen xaaj bi mooy di ko tagg salaatu shitta bi madhi sitta taatihi batta ma ahtisaay di ko tagg di bind ay xasida di jëmee ci moom nga gis xasida am daax yi ni mu toll boo demee ci euh, xasida am daax yi ba àgg ci xasida gi ñu wax mu waay bu naafiq wala nga àgg ci Hisbul Xulub xam ne bu koy bind bu koy tudd sax du tudd aw turam nda koy junj rek saaka la wàlli yu saaka naj yu saaka safiyu nga xam ne noonu la koy àggee ba àgg ba àgg ci moom du tudd turam wax wa nafiisu yonent bi saa salaam mooy ki gànjaraw ki nga xam ne moo gën a rafet lu ñëpp di di di tudd kon noonu la meloon ci moom. nii li nga xam ne nag mooy bis bi nga xam ne ci la rasulullah salaam gane jamono nga xam ne bi mu ñibbisee e, bi bi sëñ Tuubaa nekkee ab xaadimam nekk ci géej gi di ko fa liggéeyal wax na ne bu guddi gàmm masaana jot lu mu am rek da koy da koy da koy màggal rasulullah salaam bu weeree masaana jub lay daal di tàmbali di di ko waajal ba ñëpp xam ne bis bi nga xam ne ci la sangam bi gën a woon jamono kat mi ngi ñëw bu koy waajal nag day day ci li ci ëpp ci ay am daax lay doon ay tagg tagg yoo xam ne tagg yi tagg tagg yi tagg ay ay maanaam ay ju ay salaat yu yéeme yéeme sax nga xam ne euh, day day julli ci moom nga xam ne am na boo xoolee sax ci biir bind yi da gis euh, xasida yoo xam ne loolu la koy tënk mu xasida goo xam ne day wax ne rabiul awal lii maanaam maanaam bis bi nga xam ne ci la rasulullah salaam gën a jamono weer woowu noonu day wax ne maa ko moom loolu lay wax waaye ba mu ko tàmbalee yàgg màggal ci lim bindal boppam moom nga xam ne lu yàgg-yàgg la maanaam 1301 la axyay axyaytu mawlida nabi min assasine moom bind na ko wax ko nga xam ne dadaa def lépp lu mu am luñ ko jox lu lew lu mu a doon bu bisub gàmmu jotee da koy da ko ciy def di ko tarale nit ñi di ko tarale jullit yàlla bi nga xamee ne nag yàlla dogal na mu ñibbisi fii ci réew mi nag fii ci am réewam di Sénégal ginnaaw bi mu jógee ci tukki bi nag moom dafay yéemeeti moom wax nañ ne sax mag ñi dañ daa def buñ ma sànn soxla dara dañ koy dàkk ci weeru gàmm ndax ci lay ëpp lu muy joxe ci lay gën a xër ci lay gën a kanam gi ci lay gën a belli ngir bëgg gi mu bëgg Rasulullah sallam su ma sanaag ci guddi gi ni mu ko daa màggale mooy noonu ñu ko waxee rek da daa ay kuréel kuréeli yoo xam ne ñetti xaaj lañ koy def benn xaaj bi ñoom ñooy jàng euh, jësbul xulub benn bi jàng mu waaxibu naafi benn bi jàng mu xaddamaat ak beneen kuréel boo xam ne bari seen jéy bi lañuy jël nga xam ne dañuy jàng fi fukki bayit ak ñaar ñee awu jàng fukki bayit ak ñaar fee ñee leen jàng fee fukki bayit ak ñaar noonu la koy dundale ba guddi gi jeex kon daal diggante rasulilah salaam ak seexul xadim ci Euh, màggal bu ñu doon wax ni muy ni ni ni ñu xamee suñ Tuubaa ak liñ jàngat ci moom ci ni ni mu daa taxawalee guddi gàmm kenn mu sa gis ku ku mel ne moom ci guddi gàmm ci tab gi ci mbégte mu metti mi waaye it ci taraanga yi nga xam ne daana ko taral nit ñi jullit yi rawat na jàngkat waxaa ne jàng xasida guddi gàmm moom da cee gënoon a yéeme lool kon ñu ngi ñaan yàlla nañ suñu borom taas ci barkeem te yàlla yokk ay ngëneel ci moom ndax sëñ Tuubaa képp ku koy ñaanal li ma gëm rek mooy nga ñaanal ko ak bëggam bëgg ak salaam gën a gën a kawe gën a gën a yokk waaw ndax euh, dafa waatoon wax ne dinaa ko liggéeyal ba may tàbbi àjjana ahdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal munna wal minna wax na yi ne rasulullah salaam mooy sama xememteef daa wax ne nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma abaahu yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi mooy sama xememteef ci lépp lépp lu mu bëgg dinaa ko bëgg waaye lépp lu mu bañ dinaa ko bañ kon euh, di ko tagg bay wax ni ku mel ne moom yàlla mosu ko bind muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati wax na ko wax na ko tagge na ko nu ne waaye jullee na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu nekkit boo demee ci xasida yi ci fekk mboolem xeeti jullit goo xam ne sëñ Tuubaa julli na ko ci yonent bi sallallahu alayhi dem na sax ci xasida gi ñu wax nuuru daare ni di wax bay julli ci sama baag naan sama boroom yow salli salaatan tamla u samaa wal arda yaa man xaadali namaa maa ngi lay ñaan yow sama borom nga julli ci yonent saa salaam julli goo xam ne dana fees kàpp asamaan yi julli ci moom julli goo xam ne dana fees kàpp suufi yi wal arda yaa man xaadali namaa na julli ci moom maa salaamin yartaxi lil arsh na nga sëlmal ci moom sëlmal goo xam ne day daj kàpp aras wa yam loolu kursi yaasal farsh julli goo xam ne day fees képp kursi kursi suñ borom bi nga xam ne fa la suñu borom di toog muy seesam kon loolu mu ne su mu ne su mu ne sut a gis eh, ku ku julli gu gën a kawe googu sëñ Tuubaa di di di julli ci yoon bi saas ak mu koy tagg di wax ci xasida googu it di wax ne képp koo xam ne yaa ngi julli ci yoon bi te di ko jullee ci sama xasida gi muy nooru daarin yow sama borom maa ngi lay ñaan yàlla na nga yëkkati kooku aw turam te leeral ab dënam warfax li man biha yuzalli dikra wajbur lohal xaatira wasrax sadra yàlla nañu yàlla fayal yontu bi waaye yàlla nañu yàlla fayal Cheikhuna Ahmadul Xadim mi nga xam ne moo ñu nampatal ci bëgg rasulullah saa salaam moom moo wax ne bëgg na rasulullah salaam ba bëgg mu bëgg yontu bi saa salaam far na ci moom mu bëgg leneen mahamad mahad mahabati al muxtaari sayidina xubbul maxaaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa ma dammi wa maali wa awlaadi fidaa un lu abdin xadim muskandiri sanada kon euh, wax na it ci xasida gi ñuy wax mu xadamatul xidma nga xam ne da koo bind da ko dafa giñ wax ni maa ngi wax ne maa ngi waat ci sama borom ne sama dund gii moo dund du yonent bi sallallahu alayhi laa laa yemale kon yàlla ñu ko yàlla fayal bu baax a baax yàlla ñu yàlla te xasida googu wax sax muy muxaddamatul xidma ku ci dugg duggaat da nga yéemu ci sëñ Tuubaa ndax tudde na fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tur yi ñu koy woowee yëpp ëpp nañ ñaar téeméeri tur ak nangam yoo xam ne tudd na ko ci xasida googu waaye tur wu ci nekk nag dana julli ci moom sëlmal ci moom ñaanal ko tagg ko doo ko jàll ci beneen tur kon yàlla nañu koy yàlla fayal ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool di ñaanal mboolem julliti adduna bépp suñ borom yokk lislaam kàttan yàlla na suñu borom aar lislaam ndax lislaam moom na ko na la la la la la suñu borom waxoon yonent bi sa alayhi rek huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil xaq li yusa ala dini kullihi walaw karihal musrikun ak walaw karihal kafirun nee na la joo xam ne suñu borom moo ko aral boppam nee na donte yëfar yeeg musrik yëpp dañoo maasee bañ ko it du tey fa mu bëgg àgg dana fa àgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.